spécial korité ak waa qualité jasner waa qualité jasner ñoo leen indi la korité spécial lépp loo soxla ci wàllum jasner original ma nga fa waa qualité jasner ñoom dañuy dem ba ca compagnie bi daal di toog waxtaan ak ñoom jënd fa lépp lu ñu soxla ci jasner bu original daal di leen ko indil yéen waa Gambia nga xam ne kon liy wóor yow mi seetaan jottali ko ku ne jasner original 100 percent fii kese la fekkee baax ci qualité jasner ma nga ca diggu xolu West Hill jàkkaarloo monument ak cooj ba ca West Hill mbokk mi boo jógee Banjul City Capital nga féetee sa left hand nga jóge Brikama mu féetee ci sa right hand quality just there

original Jazzer nag lépp loo ci soxla bépp quantité boo soxla ci Jazzer soo demee ci quantité Jazzer di ko fa fekk yow borom kër gi da nga bëgg ñaw nuroo lay sa soxla nuroo lay say doom place bangoog quantité Jazzer fii la fekk baax Quality Jazzer mooy seen place doomu réew mi boroom lépp ngi ci biir Quality Jazzer xoolal yow daal yaay dugg xool lu la neex tànn lu la neex ñu daal di la koy jaay ci njëggu bakkane Quality Jazzer dama leen ko tànnal Dusty Place mun ngeen visiter seen Facebook page Quality Jazzer seen Instagram page Quality Jazzer ña nga tamit ci Snapchat Quality Jazzer seen TikTok it waxi noppi gaañi you look fabulous wenn you shop at Quality